والقلم وما يسطرون di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di di nuyu ci turu sunu kilifa ñoo xam si ni yàlla ñoom la dogal ñu jiite wàllu njàngalam alquran bi ci département bi Bignona muy Chérif Mahdi Haydara ak ñi àndal ci liggéeyam bi IEF Cheikh Ibrahima Sané ak IF2 Mouhamad Al Amin Badji gannaaw tamit di nuyaale suñu secrétaire yi ñoo xam si ni ñoom ñoo fi nekk ak adjoint mi Mouhamad Amadouri Imam Balde ak sunu adjoint au département bi mi nekk Thierno Imam Ba ci turu kilifa yoo xam te ni ñoom ñoo wuyu si gannaaw bu woote bi jibee suñuy àndandoor suñuy wëllëree ñu féete Touba mooy Serigne Massamba Mbacké ak ñi mu àndal ci liggéeyam bi Sëñ Fall ak ñoom ñëpp ci seeni i bi ñoo xam si ni ñoom ñoo jógee ci wàllu Touba ñëw ngir mën a waxtaan ak seen daara yi loo xam si ni loolu moo jëm si njàngalem alquran bi surtout si mbindum alquran yàlla dogal na ni daaw jéeg romboon nañ fi duggoon nañ ci bépp daara boo xam si ni amoon nañ mbébét pour egg si ñoom egg nañ ci ñoom te ñu ñoom tamit woon leen ni lan mooy seen i mbébét gannaaw loolu alhamdulilah ñu ngi siy sant yàlla leen sant ñoom yàlla def na tey tamit lañ woote sunu président départemental Cheikh Mahdi dara ak sunu Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall sunu eh, président régional mi nekk Ziguinchor moom tamit daal di jox ndigal woote imam Balde ak man mii maanaam ñu woote sëñ daara yi ñëw daje ak ñoom am na loo xam si ni lom loolu lañ am pour wane ko sëñ daara yi ak ay yéebaan yoo xam si ni incha allah ñoom tamit nañ ko joxe fii. bu ko defee amoon nañ yéene ek ci daara bu nekk boo xam si ni mi ngi ci département wala ci commune bi Bignona ñu gisee ki yow wecceeku yow waxtaan ak yow waane comme yàlla ak xat-xat jamono bi ak fu mu toll nii. loolu moo tax ñu daal di ñu ñaan ñun ñi ñu woote seen daara yi ñëpp ñoo xam si ni mën nañ teewee fii si jumaa garage imaam al amin Badji bu ko defee ñu mun fee dajeek ñoom ñu mun a waxtaan ak ñoom loo xam si ni loolu lañu ñu issi fii. ginnaaw bu ñu santee yàlla ki borom bi def julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuy mbooloo mi yëpp yëpp ñu fi teew ñoo ngi ne gan yi marhaban marhaban jóge nañ ci seen kër ñëw nañ ci seen kër. jógee nañ ci seen dëkk ñëw nañ ci seen dëkk saa allahu e, fa tabaarakallah ma sha allah mbir yi yàlla nu ko dogalee rek lay doxe yàlla def na ñëwoon ngeen fii xaw daawaat géej la ba ngi dem ci daara yi yëpp waaw e, yàlla def li ngeen ñu joxoon yëpp ñu ngi koy yor ñu ngi koy jëfandikoo ñu ngi ci sante yàlla bu baax waaw gis nañ ci njëriñ kuñ ko woon rek mi ngi kontaan ci yàlla def na tamit ci ren tamit tey la président départemental bi Chérif Mehdi Haydara wooma booru midi yàlla def euh, euh, raïs lajnatu sabab Lamine Diédhiou tamit te Ziguinchor moom it mu wooma pour ci euh, yëgal ma ni ñëw yéen a ngi ci yoon bi looloo tax ñu fexe ma téléphone ma Mouhamed Sellou Diallo téléphoné woon Adama Diallo ñeen Sidia Silla ko ñu sànni information bi di ko tasaare di woote nag di woo commune bi yëpp yàlla def ñu ñëw loolu mooy sababu jotaay bi kontaan nañ torop yàlla nañu yàlla fay yàlla barkeel jotaay bi ci barke yenent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. man maa ngi wax ci turu euh, compagnie Serigne Seck Sénégal société la boo xam ne noonu la tudd c moom day liggéey ci lépp lu jëm ci euh, jaay weer ak aluminium moom daanaka loo nga fi gis weer ak aluminium ci buntu yeeg fenêtre yi moom moom loolu lay yëngu. moom nag ay waa daara ñoo ko moom comme que société bu ci nekk dafa am devoir di jël di delloo société bi ñenn ñi di ko def ci football ñeena ñi di ko def ci bëre ñenn ñi di ko def ci musique amaana baax na amaana baaxul waaye moom daal mu nee na moom li muy jël te warloo ko ak société bi ci alxuraan la koy delloo ndax waa ndax waa daara rek ñoo ko ñoo fa nekk mu gis nag ne mu ñu gis ne daara ñi yàlla def Sénégal njàng mi mi ngi dox bu baax a baax mu wàllu tajwid nit ñaa ngi ci góorgóor bu baax baax léegi mi ngi mi ngi dem daara yaa ngi yokk yaa ngi jàng waaye nag mu am fànn gu am solo goo xam ne moo daan tax njàng di taxaw nit ki bu jàngee jàng mi toog mooy mi bind ñu gis na nag loolu mi ngi dertu ginnaaw ñu ne kon nañ ko delloo si waat kenn mënu benn yoon rek mu ñëw ndax day loolu dafa laaj lu bëree bëri xam naa ne waxtu tax na loolu xaju fi waaye am ay téere ci la bokk am ay ñu am ñu am xam bi di ko jàngal xale ci la bokk ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu nag comme que mënuñoo koo def benn yoon rek dañ ciy def ndànk-ndànk kon liñ ci jiital bokk na ci fexe ba dong yi am téere yoo xam ne moom la ñuy jànge kenn ku ne ci ñun ñi yëngu ci alxuraan xam nañu ne bind ko dafa jafe boo bindee téere ba war koo móol bu ko toppaatee rek day mel ne mosoo ko bind ñu toppaat toppaat bi moo tax mënuñu ko topp benn yoon dañuy topp par ay jukki rek jukki bu ñu paree rek ñu def ko indi indil xale ba keroog yàlla dogal ñu mën a am kaamil boo xam te ni mën a daj daara yëpp loolu mooy moom mooy jublu bokk na ci li nga xam te ni moom la ñuy kiyee mooy concours day am ndaxte bokk na ci li soññ nit ñi boo bindee pare tamit amul lu la soñ moo tax société société bi daa organiser ab concours tudd ko concours yaatal mbindam alxuraan nga xam te ni bëgg nañ at mu jot nu mu mënti mel rek na na waa bi ñoo na bokk daaw jéeg moo ki jël deuxième ci concours bi fii régional bi bi ñoo ne gën a jóge moo jël deuxième te cérémonie bi ñu amee woon ko fële ci Ziguinchor kon saa bu ñu nee dépôt yi tàmbali nañ xam ne mois de mois août la dépôt yi tàmbali au mois kenn ku ci nekk na fexe ba daaraam ña fa mën a bind lu ñu mën bind rek nañ indi ndax dañoo fexe ba juróomi eh, eh, eh, juróom-benn région yi féete fii Kédougou Kolda Ziguinchor maatam comme que yàlla dafa dogal dañoo bokk leen bind ñoom ñu def bi seen biir bu ko defee jël ñi raw neexal leen. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. kilifa yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu lu bari nuyu Cherif dara di leen ziare bu baax. ñuy wax na ko léegi maanaam ñun ay sëriñ daara lañ daara lañu yor comme yéen dañ bokk benn liggéey bu ñuy liggéey liggéey boobu nag dañuy xool saa yu nekk nan la ñuy def maanaam ba mu jëm ci kanam euh, liggéey boobu itam ku ne xam na ne ku bëgg a wax ci daara fi ñu toll nii ngir nga noppalu dangay ngay jaar ci fédération bi ndax mooy mbooloo moo xamante ne bii foo dem ci Sénégal am na tërali muñ fa boo xam ne fu àgg ci ñëpp day yomb loo tax c bi mu jógee ngir mën a ànd ak mën a dox ci lii ci yéen la jaare au fédération ci lañ jaare pour liggéey bi jàppandi kon loolu dañu ci sant bu baax di ci sant bu baax nag. ne ko sëñ Mamoun waxee eh, ku xam na ne Sénégal bokk na ci gën a jàmbaare ci tilaawatul xuraanil karim ci mokkal alxuraan karim ci mboolem àddina bi ñëpp seere nañ ko. am na itam loo xamante ne bii itam ñoo ci jiitu. donte nag siiwagul muy mokkal alxuraan karim man ko bind te doo ko xool loolu bariwut bariwut réew réew yu mu am yu bari mën nañoo mokkal comme ñun mais bindi kaamin ba mu jeex te doo ko gestu loolu loolu te doo ko xool loolu loo imla loo xam ne kenn du la wax da nga koy bind en zari xalbin en zari xayb loolu aadala ci fu bari ci réew mi ñun noonu lañ def suñu doom noonu lañ def lu ñun fee loolu mooy suñu aada aada jooju nag dañ dem ba gis ne fi ñu toll nii daara yu bari Eh, jóge na fa ngir sabab yu bari nag loolu nag société bi bi mu jógee pour jàpp dimbalante ak daara dane moom maanaam ay moyens na ko jëmee ci côté boobu nan la ñuy def ba delloo siwaat bind alxuraanul karim ki na ko mag ñi doon defee ni ñu koy mokkale kon alayhi salaam bis nee na ne man kataba an ni réel xuraan fal yamxu lu waay bind lu alxuraan karim na ko far ndax booba ah, jamono alayhi salaam dañuy bind alxuraan karim di bind xadis alayhi salaam aaye ko ngir la ngir bañ ko ko jaxase biñ demee nag ba nga xamante ne bii alxuraan sax na ba ba kii nekk fi bu weer dañ dem ba gis na mi ngi demaat ni ñu koy mokkale dañ bëgg nag buñ demal ba tubaab yi ne bu benn bu benn bu bu ko kenn moolati ñu mën ko bindaat génne ko te loolu xam-xam bi mi ngi fi man-man yi mi ngi fi dañ bëgg nag man-man boobu société bi dafa bëgg Sénégal gépp di ko def mu bañ a nekk rek ci ay béréb yu ñu xam mais ne saaroo ci Sénégal gépp loolu nag bi mu koy def mooy daa daa créer concours rawante ci mbindum alquranul karim bind rawante ci bind mooy musaabaxatu rasmil quranil karim wa hifdihi concours bi bil arabi noonu tudd musaabaxatu rasmil quranil karim wa hifdihi concours bi noonu concours boobu nag ngir man mën cee bokk day am lu mu laaj ba ci benn mooy da ngay mokkal alquran jépp ba mu jeex da ngay mokkal kaamil bi ndax lan laaj yi buñ ñu koy préparé mën naa ne loolu mën nañ ko denk kaamil bi yëpp la ñuy laaj fu ne ci ay enveloppe kaste lay nekk candidat bu ñëwee day jël enveloppe boo ko soob su ko ubbee lu ca nekk loolu lay bind loolu nag kon ne xam ne laaj na ko nga mokkal kon kon faaw kon ñuy gën a yaarat xale yi ci ñuy mokkal alxuraan karim mokkal bu baax bu noppee laaj na li ñu woowe maanaam ilmu rasmu nga xam baat yi naka lañ koy bindee ku ne xam ne ne boo taxawoon fii ci bitti di tari lu fatiha su dee téeméer mën nga ne juróom ñeen fukk juróom-ñeent yëpp mën nañoo tari fatiha dul kitab waaye soo ko bindulu boo yeexee doo ci am sax fanweer yu man waaw voilà kon ñu xam ne bind ak ak mokkal dañ ànd te léegi dañoo soree lool dañ bëgg nag ñu jege kon euh, ñeenteel bi itam dañ dañ bëgg nit ki su mënee bind mokkal mbind mi wér itam dañ bëgg mbind mi rafet parce que mbind mu rafet dafa bokk ci ah, dafa day rafetal xam-xam boo mënee boo amee xam-xam te mënoo bind da ci da koy wàññi kon tam ñu bëgg xale ñu tàggal leen ci ñu mën a bind mbind mu rafet looloo tax société bi euh, lii ngeen gis lii machine bind ko Cheikh Anta ki jël premier ci concours bi moo bind li moo bind lii ci loxoom lii moo ko bind ci loxoom du machine de Cheikh Anta Gaawaan xale la moo bind lii actuellement ñi ngi pare pour bind ab kaamil mais bind kaamil day laaj temps mais dañ ba gis buñ bind ñu séddale ko daara yi ñu ngir xale yi di ci roy ñetteel bi itam am na baas yu indi baas yi wute na ak ak yi amoon daaw baas yi euh, dañ ko dañ cee bind mbooreem arafi abajada yi ngir jàngal xale yi bind ngir jàngal xale yi bind model la boo xamante ne bi day dimbale xale yi ci ñu jàngal leen naka la ñuy binde leetar yi wu bokkut maanaam ak bu njëkk ba gisa leen ko nii bu ngeen seetloo arab abjad yëpp dañ koo ber bu nañu bind ko mboolem forme bu muy ñëwee ci bind andi nañ yëpp noonu lañ ko noonu noonu noonu lañ ko liggéeyee ngir rek tàggat xale yi ci ñu mën a bind mbind mu mbind mu rafet léegi nag comme àggaguñ foofu tañ gis ne concours tam ngir nga bokk ci ah ngir nga sawar day laaj ngay gagné ñu xam ne kii yàgg bind su bëggee rawante kii dara commencé bind day tayeel loolu moo waral lii suñu maam doon wax région sud yi muy juróom-benn région yi ñu boole leen seen concours bopp tuddee ko concours régional boo xam ne at mu jot ñoom képp la ñuy boole ñu ñu bokk ci daje seen biir ku ci dem nekk ba sa loxo rafet ba nga mën a rawante ñëpp nga ñëw ci concours national concours national bi. tënk daal Cheikh euh, Mouhamed euh, Wuri Diallo euh, Balde loolu moo doonoon tànk yi di sant bu baax nag ci lii fas yéene daal ñaan ñu tàggat gone yi. ci ñu mën a ci ci ñu jàng bind. Euh, région département bu nekk ña fa bind nañ nekk ñun nañ nañ volontaire jàngal ñi ci des bind. baba société di mën a am ñu mu tàggat ci bind ñoo xam ne danañ nekk ay relais di ñëw ci région di jàngale bind. subhaanallazi ma yasifuun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin أنت بنعمة ربك بمجنون